Yeah. asalaamaaleykum wa rahmatullah bokki jullit yi bokki taalibe yi eh, seen mbokkum taalibe Assane Diop ñoo ñëwaat tey jii fii ci résidence Cheikhoul Khadim ginnaaw tey jii mu toog mu dëppoog fukki fan ak juróom ci weer mois de juin Serigne Makhtar Diop xalifu Serigne Omar ànd ak njabootu Serigne Omar yëpp ñu doon siyaare si Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha di ñaanal Serigne Cheikh Mbacke Diop ginnaaw ki fi nekkaloon Serigne Omar tey jii nag Serigne Makhtar di xalifab Serigne Omar ñëw ànd ak njabootu Serigne Omar gi ngir feddliwaat laxasaayam ngir jébbalawaat jébbalaat boppam ki fi nekkal Serigne Touba muy Cheikh Mamadou Mountakha bi ñëwee tam ñoo ngi fekk Cheikh Mamadou Mountakha ci résidence Cheikhul Khadim Serigne Mountakha dalal ko. daal koy jox yitte daal koy nangul feddali laxasaayam daal di koy euh, daal di koy xamal ne ko sëñ Maxtaar liggéey bii démb la woon ànd bi démb la woon sëriñ Tuubaa woon ak sëriñ Omar kon tey boo ñëwee fekk nu fii ci résidence bi tey jii dañuy fas yéene ànd rek mu doon am ngatandu ñu fas yéene ànd rek euh, muy ab soññ muy ab soññee Cheikh Modou Mountakha nangul ko. feddali la xasaayam bi seedal ko moom itam ne ko mi ngi koy seedal ne mi ngi feddali la xasaayam ñu fas yéene ànd taw liggéeyub Serigne tubaab bi rek mu jolli jëm ci kanam mu bañ a laal suuf. Euh, gannaaw kàddu yooyu tamit sëriñ Maxtaar tamit daa di xamal sëriñ bi ne ko njabootu sëriñ Omar gépp ngi nii la dale ci taaw bi ba ci moom yi caat mi tey muy xalifab sëriñ Omar kenn desut mbakke jëbbal naa la sama bopp jëbbal naa la njaboot gi loo loo digle rek ci loolu la ñuy nekk ñu fas yéene rek ànd liggéey bi ñoo ngi sàkku nag lépp loo xam ne rek woote nga ko rek ñu daal di koy jekku ba liggéeyee ko ni ko bëgg Seex Moodu Muntaxa nangul ko loolu ànd ci ak moom kon murit ndigal laa ngi noonu euh, sëriñ Xalifa Joob bi mu yor kàddu kër gi yëkkati na fa kàddu bi ñu fa jógee itam sëñ Maxtaar yëkkatiwaat na ay kàddu yu soññee kàddu yu fàttali fàttali mboolem mag ñi toppoon sëriñ Omar fàttali njabootu sëriñ Omar Gueye liggéey bi nga xam ne ki ku fi ma a nekkal sëriñ Omar daan na ko soññee muy fédération bi rawatina ci liggéey yi nga xam ne. moom la jëloon teg ko ci kanamam ba ci jiitu muy liggéey bi nga xam ne moom lañ daan liggéey di ko indil ki fi nekkal seexul xadim bi ak liggéey bi nga xam mooy naal yi nga xam ne sëriñ bi woote na ko kenn ku xam ne ne yoon wi sëñ bi mi ngi ci ay naal yoo xam ne rawatina muy université beeg daara ji liggéey yooyu itam sëriñ Maxtaar soññe na ci njabootu sëriñ Omar gépp euh, sëriñ Maxtaar itam soññewaat na tam ci liggéey yi nga xam ne mooy liggéey yi nga xam ne moom la fédération bi daan liggéey muy fédération Serigne Omar gi biir biir réew ak bitim réew rawatina lu mel ne màggaluk Serigne Omar gi rawatina lu mel na gàmmu rawatina lu mel ne màggalu tubaa daal di koy tëj itam bépp ndigal boo xam ne rek dafa jóge ci Serigne tubaa ñëw ci kër gi liggéey boobu soññ na ci ku yaakaar Serigne Omar soññ na ci képp koo xam ne danga ngaa bokk ci fédération Serigne Omar bi woo na ñëpp itam ci fédération bi woo na taaliba yëpp itam ci liggéey bi ñu ànd jàpp. yëkkatee ndoon ni ko moo Cheikh Modou Mountakha wax mu jolli jëm ca kanam ni ko Serigne Assane daan waxee mu bañ laal suuf. la. sëriñ Moussa Diop moom sëriñ Omar Diop moo ànd ak ndawal sëriñ Omar bi ñëw di yeesal si yaakaaram ci yow ñu daal di jëloon sëriñ Omar teg ko ci sa loxo ak jëloon sëriñ Omar bi. ba ci kër sëriñ Omar yi xel fu ñu ànd na fa ak kenn bu fa nekkal sëriñ Omar wala ndawam ñu ànd ak moom fii teew ci sa kanam bëgg ko ànd ak moom jàppale ko ci liggéey Sëriñ Tuubaa bi ma yor ko liggéey Sëriñ Tuubaa ñëpp marché nag ñaan suñu borom nga yàgg fi te wér lool waaye ñoom lii seen sëriñ amal yi ak tàmbali seen amal yi lii mu nekk yàggal bi ñu koy ko yàgg defee ñëpp ko yëge ndax képp ku ñu sa nekkal sëriñ amal gannaaw sëriñ amal moo ci kanam doom yi jawriñ ji di leen liggéey dox seen diggante sëriñ bi na ko tàmbali ci sëriñ Assane sëriñ Naar Omar sëriñ Bachir Diop sëriñ Modou Amidou Diop ak sëriñ Cheikh Mbacke Diop bi na mu sa ñam ak gannaaw loolu tam ñu doon yëkkati suñuy kàddu tam sëñ Assane Diop Moukhaddamatoul Khidma di ko wax ci turu coordonnateur général Serigne Fallou Diop euh, Chicago Amérique mi nga xam ne mooy coordonnateur général bi jiite euh, diaspora bi ci turu sëñ Khadim Diop président fédération ñoo ngi koy ziare di wax ne liggéey baa ngi noonu Serigne Fallou mu yëkkati ay kàddu di fàttaliwaat mbooleem réew yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew bu tuddee France bu tuddee Italie. buñ tuddee Espagne buñ tuddee Amérique buñ tuddee Canada buñ tuddee Grèce buñ tuddee Argentine buñ tuddee Brésil buñ tuddee Turquie buñ tuddee Portugal buñ tuddee Allemagne buñ tuddee Angleterre ak fépp foo xam ne dafa bokk ci diaspora bi te tudduñu ko Serigne Fallou Diop coordinateur général Serigne Assane jot topp ci ginnaawam ànd ak moom liggéey bi ñooy woo képp ku yaakaar Serigne Omar ci ndigal li nga xam ne Serigne jox nañu ko mooy fédération bi ñu xam ci seen taxawaay xam ci seen jàmbaar ndax keroog li eh, sampoon liggéey bi gannaaw bi liggéey bi sampoo na ñu ca doxe woon fedd liwaat ñu ci laxasaay ci soññee ko ndax kenn ku ne xam ne ne ndigal yooyu sëriñ bi joxe nga xam ne toll na ci juróomi koñ nga xam ne njabootu sëriñ Omar diaspora ñu ci saso woon cent vingt ñu ñu dem ba jaayante ca deux cent euros dem ba jaayante ca cent cinquante euros kon liggéey boobu ñu ngi koy fàttali ñëpp ñu xam ne mooy liggéeyu kër gi mooy soññe bi lépp kon yàlla nañ ci dajeeg barke waqada awaay jëli si na daamoo fi xidmati wa ablahu maaraamoo inali si na saaraamoo li xidmati fa lahum diyaar wasal janati kon tey siyaar bi ñu ngi dëppoog fukki fan ak juróom ci mois de juin dajeeg bisub màggalu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñu fekkoon xalifa général de Mouride Serigne Touba Cheikh Modou Mountakha ci résidence bi yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér Serigne Makhtar xalifa Serigne Omar yàlla na fi yàgg ànd ak wér ak mboolem njabootu Serigne Touba ak mboolem jullit yëpp. ci barke alxuraan barke xasaayid yi euh, duñu fàtte itam président fédération euh, Sénégal muy Serigne Cheikh Diop moom tamit duñ ko fàtte ak coordinateur général am Serigne euh, Aliou Diop duñ ko fàtte duñu fàtte tamit Serigne Abdou Khoudous Ngaabu ñi nga xam ne jàmbaare Serigne Omar Dia duñ ko fàtte Serigne Bakke Sambour duñ ko fàtte Serigne Baye Cheikh ak mbooleem jëwriñ yi noonu itam lañu fàttalee soxna yi muy biir réew mi ak bitim réew ndax xam nañ seen taxawaay xam nañ seen jàmbaar noonu itam lañ fàttalee daayira yi ne ci Sénégal daayira yi ne ci Afrique ba Gambie noonu lañ leen fàttalee laxasaay gi nga xam ne sëriñ bi woote na ko sëriñ bi feddali na ko joxe ñu ndigal ñu feddali suñu laxasaay bépp selleelu sëriñ Omar bu nekkoon ci senegaal ak sart ya nga xam ne mooy mooy mooy la xam ne mooy mooy mooy doxinu liggéey bi sëriñ bi joxe na ci ndigal muy ci li addiya yi ndax sëriñ bi daa jël liggéey yi jël yitte ji jël jublu gi lépp jëm yóbbuwaat ko ci Seexul Xadim fas yéene dëgmal addiya yi nga xam ne da ko fas yéene takk di ko yóbbul ki fi nekkal Seexul Xadim fas yéene ànd ak moom ci naaj yi fas yéene taxawu liggéey sëriñ Omar yëpp kon moom rek ndigal laa ngoog yàlla nañ ci yàlla defal am gàttalu ci barkeb sëriñ Touba barkeb sëriñ Maxtaar barkeb Cheikh Modou Mountakha yow Serigne Omar defal nga ñu te dul ka xam lu dul keroog ban jàll ñu. billaahi yow Serigne Omar defal nga ñu te dul ka xam lu dul keroog ban jàll ñu. jaajëf Cheikh Mokhtar Diop yow yaa ka baax yàgg fi jom ñu yàgg fi yow dégg nga ñu. waaw. ذات البر يا مختار يا سيد الورى عليك السلام يا يا من لا سلام يا مختار يا سيد الورى عليك السلام يا من لا سلام لك الفر يا مختار يا سيد الورى بقي عليك السلام الله إيام ناشرا لقلبك يا مطاع يا سيد الولايا عليك السلام الله يا مناشرا kenn ku ci nekk maa ngi jaar ci saw tur ak saw sant di leen nuyu di leen masawu coono di leen ñaanal ci jëmm ji nga xam ne bi noo ko bokk ndax boo ne Sëriñ Mar moo ma jur ngeen moo jur sunuy bàyyi ba sunuy ndey ñu yemoo woo ca waaye tey jii de mooy bés bi yàlla dogal ci noonu ndax sëñ naar mi nga xam ne bi moo mag ci sëj moo njëkk ñëw fii joxe fi addiye dénkaane boppam ci moom ak ci sët sëriñ Omar gi fi ne te tàmbale ci sëñ Malick ak maanaam njabootu sëriñ Abdoulaye Diop ak na njabootu Cheikh Naar Omar ak Cheikh Assane mi ko jiite ñoom ñëpp kenn ko ci ne jox na ma fii addiye dénkaane boppam Cheikh Assane moom njëkk a jox loxoom ne ma dénk naan lépp loo xam ne bii ne sëñ Naar sëñ Assane sëñ sëñ Mbacke Diop dénk naa la ko maa ngi ci yow njabootu alaaji Mbàkke jo alaaji alaaji eh, Mbàkke ak njabootu ma njaay fa laamin kenn ku ci nekk ñëw na fii joxe loxo am dénkaana boppam te noonu ay taaliba rek la ñu kon jëm seen war la seet ci noonu njabootu maanaam eh, mboolem yoon wi laal simple lay Diop ak Cheikh jot ak maanaam njabootu Cheikh Omar gi sëñ naar moom bu joxee loxoom jébbale boppam na la seet ne nangu na njabootu Cheikh Moustapha gi sëñ Aliou moo leen fi nekkal mooy Cheikh kenn jóg ko joxe loxoom na dénk naa la sama ak njabootu Cheikh Moustapha gépp ki bi mooy njabootu <coughs> njaboot gi fi nekk kenn ku ci nekk na ma taxaw woon seen waajur ba noppi leen a gis na leen seet ne kenn ku ci ne sa doom walla sa taaw ñëw na fii dénkaan si boobu te ñun ay taalibe képp lañu yàlla nu yàlla saxal ci ak taalibe ñoo ngi leen di ñaanal fan wu gudd gu ànd ak wér gu yaram mucc gu ànd ak xéwal barke ak barke loolu yi ma leen ñaanal moo nekk sama xol bi te ànd naa ko yéen nag di liggéeyal sëriñ bi ba noppi noo gis ba ma noppi leen a gis loolu yàlla na ko yàlla nag nangu naa leen seen njëbal gi ngir jëm sëriñ Tuubaa لا ويكر وخنا على إنما دنيا كمنسل راكب أنا خائساو وهو في سبء راهب ألا إنما الإنسان ضيف بعاله يقيم خليل عندهم ثم يرأل أدنى النون لقته من ملك كوخان بين دفا ورسا جلم Mm, ba jant bi soog nga yësal gileem gi mm. fajar jot nga yokk dem mm. ku fi nekkoon rek noonu la fi jaare woon waaye yàlla na leen yàlla may kattan ak wërsëg bu ngeen mën a yore ñaar njaboot gi te musu si pakk yi ak ndog yi ak yàqu yàqule wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu maa ngi leen di fàttali nag batub sëñ Asan bi nga xam ne bii ne moom la daa wax nuy dégg te sëñ Asan ba mboolem ko sëñ Omar jur mooy sa kilifa suñu sant daa wax ne na ngeen moylu ci mbirum Serigne Omar rek mu jolli di wéy di ngeen na fee jolli nag waaye delluwul ginnaaw kon boog nan àndan te te yàlla tax ak yonent bi jëmi Serigne Bamba ka war a jiitu mu jiitu ka ci war a topp topp ci lii laa leen doon fàttali ne leen kenn mënu leen fay waaye boole naa leen sëñ Tuubaa ak Cheikh Mountakha jërëjëf bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin المبعوث فينا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الأخيار ورضي الله عن شيخنا أحمد القديم وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضي الله عن شيخنا عمر جور وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ومريديه بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yéen mbokki jullit yi ci kàddu sëriñ bi yéen mbokki jullit yi ak sama mbokki taalibe yi rawatina sëti sëriñ Omar yi ci njiital sëriñ Naar Xasan Diop ak mbooleem rakkam yi aju ci sëriñ Omar yépp maa ngi leen di nuyu te di leen sant di leen gërëm di leen soññ ci liggéey ak jaamu yàlla ak dimbalante ci baax ak ragal yàlla di leen fàttali mbirum sëriñ Omar ndax sëriñ Abdul Ahad nee na woon atteb Tuubaa gee mooy atteb njóobeen jii na ngeen mel ne ak kuus cig nosu fu ngeen fi dajeeti ku mag ci yéen na ko jiital tey xool ci moom sëriñ Omar te maa ngi leen di fàttali moomeeru sëriñ Omar bi te weesuwul jumaa ji ak daaray sëriñ Omar yi ak kër sëriñ Omar ga ca Qaahira ak kër ak kër sëriñ Omar ga ca Poroxaan di leen xamal ne lépp lu sëriñ Cheikh Mbacke Diop dénkaane woon maa ngi koy feddaliwaat ci yéen te ngeen ànd ko fédération bi ak lépp luy yittey kër bi te di fat feddaliwaat ci fédération bi taxawaay yi ñu yoroon di ci woo ñëpp di ko tàmbalee ci sëriñ Naar Xasan ak njabootuk sëriñ sëriñ Xasan Diop gépp di ci teg sëriñ Malick Diop ak njabootuk sëriñ Abdullahi gépp di ci teg sëriñ Cheikh Ngaabu ak njabootuk sëriñ Moustapha gépp di ci teg sëriñ Cheikh Màggat ak njabootuk sëriñ Malick Diop gépp di ci teg sëriñ Xasan Nogoy ak njabootuk sëriñ Naar Omar gépp di ci teg sëriñ Cheikh Abdou Fali Diop ak njabootu sëriñ Basiiru Jóob gépp ak mbooleem ay rakkam sëriñ Gumbu moom sëriñ Saalih ak sëriñ Cheikh Omar moom sëriñ Cheikh Mouhamadul Hadid ak sëriñ Hassan moom sëriñ Cheikh Mbacke ak mbooleem taalibe yi njabootu ñaay njaay naar gépp ak njabootu maam Ousmane Samb ak njabootu maam Mandiaye Fadamin ak njabootu ngéeyeen gépp njabootuk maam Ibrahima Gueye ak Baye Sali ci njiital seen Alxaaj Njaay ak njabootuk Caameen gépp ak mbooleem taalibe yi taxawaay yi nag mooy màggaluk sëriñ Touba gi ak màggaluk sëriñ Omar gi ak gàmmu gi ak poroxaan gi ak bisu diine yi maa ngi soññ sama bopp di leen soññ maa ngi ci soññ mbooleem taalibe yi ñu fas yéene ànd liggéeyal sëriñ Touba ak sëriñ Omar radiyallahu anhu te maa ngi leen di digal yéen daayira yi na ngeen bootu ci fédération bi te fu ngeen fi dajeeti na sëriñ xalifa Diop yor sama kàddu maa ngi leen di ñaanal mbir mu yéwén ak aaju faju te sëriñ Touba nangul ñu sunub liggéey wassalaamu ala man ittaba'a al-huda wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ngir sa dëndu wajur woowee waaye lan daan wax ñu déet te nekkoon fii tànkam loolu lan lay jottali sa baay daan wax mun jullee ba nopp yéen ñëpp digal naa leen yéen mooy ci mbirum sa mu joole di jëm waaye dafay gën a joole kat waaye dellu ko gannaaw loolu nga xam moom la sa baay def mii noonu ngay def noonu yi ngay doxee nag moog sëñ Saliou Diop ñoo bokk benn ndey ak benn baay sëñ Basirou bi fi sëñ Omar jógee nee na Omar jógee sëñ Basirou moo dëkk jël ak loxoom ak jëmam ak jëmmam ak moom jébbal ko sëñ moo ko rakkam loolu yi nag noonu yi nga def baay nekkee sun mag nekk bi bala noo mën a wax ak wax ne bala maa wax leen seen xalifa dana mu wax danaa ko dëgg na la seere ne woowu yoon dong mu ci jaar ku fi nekkal sañu ku ne taxawaay boo xam ne bii boo man foon sax taxawaay kon yëf a dana sooxe lool waaye da nga gën a dëgëral sa taxawaay sa baay nag sa dama boole woon ak yow da koo boole woon ak yow tabarkal tabarkal tabarkal boole ba nga ñëw boole ba nga ñëw mu woo ma ba ma ko moom ba mu ñëw mu ne xalifa mu ne xalifa naa la sa maxtaar dénk lu mu la ñaanal yàlla dana ko def nee na musu la tànk tànkam na raw yàgg lool yàgg lool ak wér naa leen bu baax seen taxawaay gis naa ko seen seen seen toogaay gis naa ko seen Omar gis na ko waaw loolu fu nekk nekk la fi nekk